seen doon euh, présidente réseau fédéral bu FECAJEPS waaye nag teewal fi tey suñu présidente Adja Koumba Diallo maanaam mooy présidente euh, RENCAS moom laa teewal tey ci ndaje bi. Euh, tey ci nga xam ne nii 2023 bi dafay mel ni dafa ñëw ci heure bu baax bi di li nga xam ne moom lañ doon wër depuis 2005 ba léegi tey jii tey lañ ci jot muy chèque yi nga xam ne tey jii waa. waa action Karim ñoom ñoo ñu koy jàppale euh, ci suñu biir liggéey fekkoon na ay jamono ñun ñu doon dajale ay juróom fukk di dajale ba am euh, xaaju milliard waaye tey nag waa ADC indi tey loo xam ne moom la ñu jàppale presque trente millions yoo xam ne nii tey ñun la ko jagleel ñun ñi nga xam ne ñun waaye waa Renkaas lañ ba pare Renkaas wàcce ko ci suñu réseau fédéraux yi loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di sant aussi waa ADC ñi ñu jàppale. di sant waa Ronos di sant ñi nga xam ne mooy gérante sant ñëpp daal eh, ci gàttal. jéego hmm. yi ñu fas yéene teg dafay mel ni balaa ngay xam ne ba su tey bi ñëw na def nañu ay plan d'action ci gox-gox bu ne gox-goxaat yu nekk maanaam 14 eh, OP yi nga xam ne tey ñoo aju ci ci ADC ñun ñëpp teew nañu. teewal nañu seen plan d'action hmm. plan d'action day mel ni daf ñu won yoon wi nga xam ne moom la ñu war a jaar lu ñu nekk ñu won ñu ko wax ñu kañ la wax ñu la muy jaar kon loolu dafay mel ni ci la suñu chèque bii di war a dem ci liggéeyin boobu mais nag ñun itam ñu góor góorlu ba nga xam ne ëllëg a ak sibir bu ñu dajee ak yéen fii du ñu am kersa bu ñu dajee ak kenn ci xam ne partenaires yi nga xam ne tey ñoo ñu jàppale ba ñu agsi fii du ñu am kersa loolu lañ ciy xaar. ne paaka lu mu ñëw ñëw dañ koy daasaat fasit lu mu daw daw dañ koy dàq ndax ali da cay waar kon loolu mooy tax ñu di ñu ñaax mais damay jàpp ne la ñu jàppoon démb. di ko korkoree di ko korkoral ba mu agsi tey ragal naa ne tey dinañ ko dëgëral dinañ ko fësal dinañ ko firndeel dinañ takk suñu ndigg yeew ko ba nga xam ne ëllëg dinañ am résultat. te yi ñuy def maanaam dafay nekk lu dem ci calebasse de solidarité maanaam ñu naan ko leket leket muy lu am solo muy loo xam ne dafay dox ci ñetti mbir santé éducation ak nourriture loolu itam di nga xam ne nii tey moo tënk jaboot ci këram. jaboot bu nekk soo amee ñett yooyu sa biir kër mën ngaa waat ne doo ko génn ndax mën nga xam ne itam lii macha allah di nga sant bu baax a baax a baax. Samba Mbaye euh, man maay secrétaire exécutif bu Reynolds Reynolds mooy réseau national des organisations de lutte contre la soudure et l'endettement euh, kuréel yi fi nekk yëpp yi nga xam ni partenaire action de carême la war a dawal programme soudure endettement ci Sénégal ñoom dañu lëkkaloo def benn réseau. ma donc foofu laay liggéey ak ñoom. 2005 ak léegi yàgg na waaye xam nga euh, bu fekkente ne da ngaa nekk organisation de base da ngay am ay vision am ay mébét seq ko ay nit ñu war a continuer di waxtaan di teg mbir yi ci yoon mu am nag ay yaakaar waaye at ak morom ja dafa gàtt te mébét boo gis rek dañ koy def ñun ay programme de travail annuel at mu ne ñu natt ko. gis na ni jéego yi def am na solo lool bi ñuy tàmbali tuut na lool waaye tey mi ngi commencé di màgg ba tax ñu jur li ñu tuddee Renkaas boo gisee Renkaas rek ni mu taxawee calebasse leen tàmbalee calebasse de soldats ca dëkk ya ca quartier ya réseau de proximité loolu la ko tuddee mooy boole calebasse yi parce que lu kenn man ñaar ko ko dàq ñu leen di dajale. donc soo ñu doon gis tey ay ndam dangay gis ni am na ndamu structuration maanaam ni ñu tëddee. ba kere ñu yëg si au niveau national mais aussi day ndam am ndamu dajale bi mais aussi day am euh, ndamu ñu nekk am benn famille ñu ngi koy constituer benn famille léegi ndax a ah, alal ji fi jin fi dajale daanaka six cent soixante et quelques millions la lu am solo la te dërëmu kenn dugg ci lu nit ñi ko séq te njëlbeen nga bu ne kalabaas la kumpa la jaaxalan na ñëpp ñu bari dañu dawoon ni daal lii du sotti ñun dañoo soxla xaalis bu ñu liggéeyee yéen ngeen di ñu dajaleel ay ñaar fukki juróomi dërëm yooyu nag tey kon gis nga ni ndam la léegi li feeñ aussi mooy que fu nu ko waxee présenter suñu résultat ah bari nañu ñu naw ñu ngi nuy naw dañu jox dañu jox gëdd dinu jox place loolu moo taxoon tey euh, journée nationale calebasse soda bi mu mujj def ministère économie sociale et solidaire ak microfinance bi ñu ko invité bi mu ñëwee daa daal di jël ay engagement dinaa def ak yéen lii ndax yéen laa doon seet avant moom ministre yi ko fi jiitu dem nañu ba lettre de politique sectorielle bi ànd nañu ba mu ñu dugal ci calebasse de solidarité xam nañ ko mu nekk jumtuwaay boo xam day liggéey contre la pauvreté ba pare dafa nekk benn euh, jumtuwaayu cohésion sociale soo demee ca quartier te dëkk ya ñu daawul waxtaan ñu ngi waxtaan ñu sequl woon démb wàllu koom ñu ngi koy séq ñu daan euh, ñu séqaloon wàllu génn ma ci jaaxle ñu ngi koy séq léegi koo xam ne kii xeeban na boppam tey mi ngi jiite njaboot ci biir koñ bi mu dëkk. toujours da ngay am day am toujours déjà nattukaay bi nga xam ne moo gën a yaatu boo ñëwee dafa nekk ñaari milieu yu ñuy liggéeyee milieu rural bi donc suñu dëkki kaw yi nun ay ay béykat lañu mais da ngay gis koo xam ne kii li mu bay ñoral ko du attan li mu soxlawoo pour dund. loolu moo doon dagg-dagg bi am ñu tudde ko soudure soudure boobu da lay jural ah sa waa kër doo leen bàyyi ñu woor da ngay wuti lu ñu lekk léeg nga àbb ko boo ko àbbee moom ngay jënde dangay dem ba yàgg mu nga endetté wu ay bor topp la ay bor war la dangay dem ba gis ñoñ dañuy dem ba seen tool wala seen jumtuwaayu liggéey dañ koy euh, dañu koy dañuy dañuy mujj di ko tayle usuriers yi ne ci ci ruq bi aussi ñii ñi ñii ñiy jaay dund ak ak xéewal ñoom it dañuy dem ba mujj dañuy dañ da ngay nekk seen client boo xam ni dañ lay dañ lay jaay njuróoti di la abal xaalis bu xaw a doy waar gars yi dañ ko daan jël nattukaay yi nu am nga xani moo baax mooy dem ba tey gis ni waaye gars yi kat génn nañ ci soudure bi daan duré nangami weer juróom benn weer daana ko mag léegi boo demee ci am na dëkk yoo xam ne amatul soudure wala bu soudure dugusee am na ci calebasse bi wala waa dëkk bi dajale nañ loo xam ne cib dund jigéen na leen te jàppandi na da ngay génn sa kër mu réglé ko dootoo soxla génn sa dëkk di dem beneen dëkk génn sa koñ di dem beneen koñ te léegi mën ngaa tànn li ngay lekk bu njëkk loo am rek jël tey nag da ngay tànn danga nga naan bëgg naa cere kon dugub laa soxla bëgg naa cere ñebe et cetera donc bëgg naa ceeb loolu dañ ciy génn loolu ñu ngi gis bu baax a baax ni ñun ñaa ngi ciy génn. bokk noog avec ndax ñun dañu am ay principe yu ñuy liggéeye li ci gën a li ci gën a am solo mooy kumpa gi. day wax ni nan joxe nangam wala loo fi denc nangam ñu nag fii kumpa la liy jëkk a jox alal leget gi mooy kumpa googu li ñu tuddee AVA action da ngay apport volontaire anonyme apport volontaire anonyme boobu sama loxo rek laay ñëw dugal ndax ñaar dërëm la ndax ñaari junni la man rek maa xam maak yàlla. bi ñuy waxtaanee ak ministère bi ñoom dañu gis ni amoon nañu alal bu war a jàppale ci gox yu bari bu nu yam rek sunu leget yi ak ñun. ndax que dañu jàpp ni xiif bi wala jaaxle gi du ñu ndong dafa dem ci dëkk yi taax yi surtout ci zone périurbaine bi kon li jaadu am nañ fi expérience Sonadis ak ay bitigu témoin ak nangam yi fi jaaroon lu tax mënee su la delloo si lu mel noona ñun ñu coaché ko ñoom lool lañ doon xalaat. def ko wala defaguñ ko ñoom ñoo yoroon alal ministères yi ay réunion interministérielle la yoo xam ne ñoom ministère microfinance ak économie sociale et solidaire ñoo waxtaan ak ministère du commerce. ñooñ ñi leen lii mën naa gën a yomb ndax tey bu ñuy defoon ay magasin nangam dina gën a yomb mais loolu lépp xel ma mooy na na produit jàppandi te nit ki néew doole man cee jot te kenn du ko sonal ci fayeeku xaalisu dëkk bi day day jariñ waa dëkk bi du génn dëkk bi mu ngi ci nit ñi li ci ëpp su ko defee nee na la lekk nee na la njàngum xele yi nee na la wér-gi-yaram su ma amee jaaxle man borom kër sama kër ci wàllu dund ak nangam damay jug jóg rek dem ci calebasse bi léegi nag xam nga lekk moo ci gën a xaw a yéeme li ñuy tuddee achat groupé parce que détaillant yi ni gis nañ ni day yokk njëg su ma dee jënd par détail day yokk njëg gi waaye bu ma jëndandoo rek mën naa jouer sur le prix ñu ne leen kon nañu wuti doole ci achat groupé comme ñun ñëpp xéewloo ceeb nañ jëndandoo ceeb bu bari njëg ga wàññeeku bu buñ ko indee ci penc mi ku nekk jël li nga ci soxla bu nu soxlaa diwlin noonu lañ koy defee bu nu soxlaa suukar noonu lañ koy defee daa saa ñoom seen donc loolu mooy li nga xam ni mooy xel mi ci nekk donc suñu alal yi daanaka du génn. waa li ñu denc lépp nga xam ne ñun suñu liggéey ko jur moo nekk totalu six cent soixante millions soixante six millions et quelques. circulé xaalis bi day am lu taxaw du lépp taxawul. mais am na lu taxaw. ah parce que 30 pour cent déjà mi ngi fi nekk liquidité tey ci bi ñu mujjee def mais 70 pour cent yi mi ngi wëndeelu parce que xaalis bala moo am njariñ day wëlbatiku ah ba pare dalalum xel c'est c'est c'est important aussi ñu yóbbu ko. le coordinateur national d'action de Carême Suisse au Sénégal. réunis aujourd'hui au niveau de l'hôtel Exil pour remettre des chèques de soutien aux réseaux fédéraux de RENCAS, c'est-à-dire le réseau national des calabasses de solidarité du Sénégal. En fait, nous avons trouvé qu'elles font beaucoup d'opérations d'achat groupé, c'est-à-dire acheter des produits en grande quantité et les aux membres à des prix accessibles. Et nous avons constaté que l'offre est vraiment inférieure à la demande. C'est pour venir soutenir l'offre que nous avons mobilisé 37 millions pour permettre aux différents réseaux de pouvoir acquérir plus de produits, pouvoir satisfaire la demande au niveau des villages, des quartiers, mais aussi au niveau national avec les RENCAS. Et en fait, euh, nous, l'angle de la pauvreté qu'on a attaqué, c'est l'angle de la soudure et l'endettement. La soudure n'est rien d'autre qu'une période morte ou si c'est un salarié, c'est vers les 25 on n'a plus d'argent. période où la récolte est terminée et la prochaine encore là. Et nous très difficile où la personne est très vulnérable.

Durant la période de soudure, soit il y avait les vivres de soudure qui venaient de l'extérieur, ce qui a un impact un le système de production. Et nous avons mis en place des stocks qui permettent dans les ménages, bien dans les villages, à pouvoir satisfaire tout le village et garder un stock même pour les autres villages. Donc si je donne l'exemple de Kungel, nous avons un stock de presque tonnes dans ces villages-là pour permettre à des personnes, durant la période de soudure, d'avoir de quoi se nourrir. d'ailleurs, c'est la zone la plus grande en termes de calabasses. Nous avons à peu près, sur les et quelques calabasses, il y a 600 calabasses qui sont dans la région de Thiès, dans le département de Mbour, dans le département de Tiaoun et dans ces trois départements, nous avons mis en place un stock au plan alimentaire, à peu près plus de 50 000 tonnes de, de, de céréales, que ce soit du mil, du maïs et du riz que nous aidons avec les ménages à pouvoir régler le problème de soudure. En fait, ce chiffre recompose ou bien compose trois éléments. Le premier élément, c'est ce que Massamba Mbaye disait, c'est l'apport volontaire anonyme. C'est-à-dire lors des réunions, chaque membre fait avec sa main sous la calabasse, c'est ce qu'on appelle la VEA. Ce montant-là représente près 50 à des 600 millions. La troisième source de revenus de ces millions, ce sont les bénéfices que nous tirons des opérations d'achat groupé. C'est-à-dire de mil ou bien de riz que nous revendons. Les bénéfices qui sont tirés là-bas, ça représente entre 20 de ce que nous appelons généralement tout le soutien avec les personnes de bonne volonté, aussi lié à des activités économiques

couche vulnérable on ne peut pas garder l'argent, l'argent doit tourner. C'est pourquoi on fait toujours des opérations d'achat groupé. Autour de chaque réseau, nous avons à à 5 par mois. Ce qui fait que maintenant, sur l'année, tu as peu près presque 60 à opérations d'achat groupées par réseau sur les 14 que nous avons au niveau national. Parce que pour rappel, aujourd'hui le programme est dans 11 régions sur les 14 que compte